yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban billah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen sant bu baax ci teewlu gi di ñëw ak yéen rek tey ci seen émission bis bi te it eh, di loo xamante ni dañ ci soññee ci mbool mbooloo mi nga xamante ni dañuy faral di nekk ci eh, mbedd yi di joxe lu mel ni ay ndogu eh, ñu ci ñu gis ko mu bari lool ci jamono nga xam ni daanaka fi mu ne phénomène la boo xamante ni dafa yaatu lool mu itam acte boo xamante ni bu rafet la ndax l'islam dafa bokk ci yi nga xamante ni maanaam moo koy dëgëral mooy euh, di leele mooy di jël aw ñam di ko jox ñi nga xamante ne soxla nañ ko ndax suñ borom mi wax alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin al muttaqiin mooy allaziina yu'minuuna bil xaybi wa yuqiimuuna salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla te yàlla tax am na ñoo xam ne dañuy jël seen seen seen këll di ko laaj ci mbedd mi ñu leen koy jox ñu koy dajale ba mat ab lim ñu defar ci lu mel ne café wala ay yu mel noonu di ko jox ñi nga xam ne soxla nañ ko loolu itam dara néew ci ndax ki nga xamante ni daf ko dafa bëgg fu mu def alalam te amu ko nga ñëw laaj ko ko mu jox la ko nga dugalal ko ko ci yoonu yàlla dimbali nga ko kon ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu di jël seen alal di ko joxe ci lu mel noonu ak ñi nga xamante ni dañ koy jël di ko togg di ko jox doomu aadama yi loolu ñu ngi ci def liggéey boo xamante ni bu am solo la ñu ngi leen ci ñaana suñu borom dajal leen ci ngëneel ndax euh, fexe ba leel kenn aw ñam rek loola yool ba ca nekk loola suñu borom rek moo ko xam te it nit ki saa bu wooree ba ngoon jot nga jël benn tàndarma jox ko mu doge ko am nga yoolub kooram yow soo wooree am nga sa yoolub koor waaye moom mi nga jox tàndarma itam am nga yoolub kooram kon day mel ne dangay am ñaari yoolu koor ci benn bés kon nag loolu euh, jéego la boo xamante ne bu rafet la waaye mu ngi bàyyikoo ci euh, Serigne Touba Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba digaloon ko maam Cheikh Ibrahima Fall ci wax ko ne ko dama am gan gu ma fonk goo xamante ni mu ngi ñëw ma bëggoon bu agsee nga teerul ma ko teralal ma ko comme ni mu ko doon waxee yaa mukrimat day fi jaaran kaana aw zaara yaa maahiyan an xadimi xablu aw zaara waaw yaa sahra rabbin karimin fii ka jaadalana bi laylatil xadri zaatil fadli wa raxadi nga xam ni noonu la ko Cheikh Ibra daan defee nga xam ne am na marmite boo xam ne moo ko daan togg ci loxol boppam daan ko indi sëriñ bi àddiya waaye nag loolu dem na ba fi mu ne yaatu na ba association yeeg mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci senegal lépp ñu ngi koy def waaye muy liggéey boo xamante ni bu am solo la di leen suñu borom defal leen di ñaan itam aggale ko koor gi ak jàmm te luñ ci woor yàlla nañ ko suñ borom nangul te ñu defee ko ni ko suñ borom bëggee ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci teewlu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, bu ko defee defee dañuy ñëw rek ci li nga xamante ni mooy yóbbalu bis bi yóbbalu bis bi mooy euh, ñu ngi euh, digal mbooleem ñi nga xamante ni ñooy mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi ci ñu gën a góorluwaat bu baax ci seen alal ñu koy ñu koy joxe ci yoon yàlla te yàlla rek tax te bañ cee am xaj ak seen waaw baax na baax kon ñu ngi ñu ngi yóbbalu bis bi ñu ngi ñu ngi digal bépp mbokk jullit ak mbokk taalibe rek mooy ñu jël seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla te yàlla rek tax rawatina nag maanaam lu mel ne weeru koor gi ñu koy def te di ko bari lool ndax euh, alxuraan dafa wax ne lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa boobu nit ki doo am li nga li nga bëgg mukk lu ne da ngaa jël la nga gën a bëgg la gën a cher ci yow nga jox ko te yàlla tax mooy boo tijjee sa sa sa sa valise nga seet mbubb ma ci gën a nga jël ko joxe ko maanaam fay ga du am solo waaye boo seetee la nga gën a fonk nga jël ko joxe ko te yàlla tax loolu la suñ borom di fay kon itam sa alal boo demee ba cay génne da nga cay génne lu am solo nga fekk ko am solo nga def ko nga def ko fa dana tax mu mu mën laa jëriñ rawatina ñi nga xam ne ay boroomi alal lañ dangay ngay gis ñoo xamante ne dañu ñàkk lool te soxla ko da gis koo xam ne mën naa denc ay de millions ci benn kër gis koo xamante ni benn ñatt téeméer bu mu lekk rek da koy të génne ko nag bis benn bàyyi ba guddi jot nga génn ku nekk nga fëgg ko buntu këram yëkkati 1 million wala 500000 jox ko ko da nga ci amee loo xamante ni boo faatoo da nga ne bu ma yëgoon sama alal yëpp danaa ko def nii. gis nañ ci jamono ji bëri na ñoo xamante ni ñu ngi rëccu ci ay alal yoo xamante ni dencoon nañ ko ba jamono bi suñ borom dogal ci ñoom leneen maanaam ñu ngi ñu ngi ñu ngi rëccu ci ñàkkoon kee def kon nag lu am solo la ndax dee moom day ñëw te day bette. te saa bu ñëwee suñu borom dootu bàyyi nit ki mu dund benn waxtu dootul bàyyi nit ki itam mu des si benn waxtu ida jaa ajalahum la yastaxiruna saatan di yastaqdimun kon nag nañu jël suñu alal yi jaamu ci yàlla joxe ko ci yoonu yàlla rawatina ak ñi nga xamante ni dañ koo soxla te doon ay way ñàkk ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi alal wasa loolu moo doon yóbbulu bis kon suñu ñëwee ci li nga xamante ni rek mooy naafil ak bis bi di guddik euh, juróom-benneel euh, dañu wax ne képp koo xamante ni julli na ci ñaari rakka rakka bu nekk mu jàng ci faatihatul kitab benn yoon wa xul huwa allahu ahad euh, isnata mooy fukk ak ñaar képp koo xamante ni julli nga ci xul huwa ñaar nee na suñ boroom dana la defal ci ak pay loo xamante ni Eh, man salla fi maqaami ibrahima alayhi salaam di nga mel ni ku taxaw ca maqaami ibrahima alayhi salaam julli fa alfa rakaatin mel na ngeen ku julli junniy rakka fi masjidil xaram mel na ngeen ku julli junniy rakka ca masjidul xaram eh, wa kaman saddaxa alfa dirham di nga mel ni itam ku ku saraxe junniy dërëm wa atxama alfa jaamiin di nga mel ni itam koo xamante ni leel nga euh, junni euh, mbooloo waaw kon loolu rek waroon naa tax ku nekk mën koo fexe maanaam euh, def kon yàlla nañ suñ borom defal dégg ak topp te ñu def ko ni ko suñ borom bëggee ci weeru koor gi dugg ci bismillahi rahmaani rahim te àggale ci ko alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa wa barakatu أهلا وسهلا وترحيبا بلا